mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yeneen temba ñu ngi ñaanal bu baax sëriñ Touba Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké sunu boroom guddal aw a biral ay cëram yàggal taxaam ci sunu kanam di ñaanal Serigne Mountakha moom sëñ Bassirou sama borom yàggal ko fi xam ngeen ni seen doom ju baax ji di sëñ Bassirou ah moom sëñ Moustapha Bassirou di maire de Typ. kenn ku ne xam na bisam bi nga xamee si ni moom la bëgg na jëf ci bis yi nga xamee si ni maanaam das ko programme ba noppi te ba jàppan la neuf waaye nag waajuram mu baax wi sëñ Mudu Aysa Mbàkke mu sëriñ Baara mu tombeek ay bisam ca kenn ku nekk xam na yoonu murit ni muy doxee ci taalibe rekk lay doxe sëriñ bi daal daal di woote taalibe yi ni leen am na loo xam si daal mënuma ko ci di su ko def kon léegi nañ ko toxal la 15 loolu moo waral lan woote bi kon nag damay wàccee foofu sama kàddu jox Madické Dieng mi nga xam si ni moo wàll ah, moo yor wàllu transport bi mu yëkkati kàddoom ci wàllu transport bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi ñi ñuy déglu ñëpp ak ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew ñun waa commission transport fii ci kër Serigne Bassirou mbakki ci bisam boobu muy war a def tombeek la 15 avril ci Mbàkke Bawal ñu di ko tudde entrée politique ñu di ko waajal ci wàllu transport bi ñu di leen xamal ne képp ku fi ñëwoon waxtaan si ak ñun te war caa dem ñoo ngi lay xamal ne transport bi taxaw na incha allahu tabaraka wa taala da ngeen ko am ni ngeen ko bëgg te yenn jafe-jafe du ci am oto yi dana doy danañu teel a ñëw am nañu yéene yóbbu mbooloo mi ci jàmm delloo si leen ci jàmm incha allahu tabaraka wa taala ñi ngi woo transporteur yëpp li tàmbalee ci département Mbacké ba ci région de Diourbel bàyyiwuñu kenn muy góor muy mag muy jigéen muy ndaw képp koo xamante nii yore nga transport te man cee jàpp woo nañ la ci bis boobu ngir sëñ bi ci boppam moo woote entrée politique Mbacké Bawal te bëgg nañ mu réussir cent pour cent incha allahu tabaraka dégg ngeen kon kàddu yu am solo yooyu ma dikkee yëkkati ci jitaay bi muy kaddu yoo xam ne kaddu yu matal leeral la lu jaral leeral la ñuy ñaan yàlla sunu borom daal yóbbu na ci bis ba ak jàmm bu bis ba ñëwee kenn ku ne xam ni ah sëñ bas daal jàmbaar la. taalib Serigne Bamba boobu bii bu ñu see yeggee ñu xam ne ah nii daal la ma ne kon yàlla na ci yàlla jàmm ci barke Serigne Bamba. léegi dañuy yëkkati kàddu gi jox ko sëriñ Guédé mu wax ci comité organisation bi. salaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu mbokk yëpp ñiy déglu ak ñi seetaan ni ko Serigne si jàll waxee rek ma Madické moom mi nga xam ne moo jiite woon comité transport bi ñun lañ dénk wàllu organisation bi. ñu leen di xam rekk ni bis bi nekk ni bis boo xam dafa ñor Serigne bi lool ba tax na lépp luñ ci man ñun nga xam ne ñooy xale yi kër sëñ Basiru yi ak ñi nga xam ne ñooy ay soppeem ñu jóge Tiib ak Mbàkke ak Tuubaa gi yëpp ñu jiital ma ca bopp ba. lépp lu ci wàllu organisation incha allah daañu ci taxaw na mu waree di wax ñi ñëw di nañ dalal seen xel incha allahu lépp lu ci organisation daan ko def na mu waree képp ku ñëw daañ fas yéene sàmm sa kóolute maanaam nga nekk ci jàmm dara du la dal ci jàmm ak salaam ñu def li ñu war a def nga ñibbi ci jàmm ak salaam. di ci woon nag képp koo xam ni nii rek jeune nga te mën a jàpp ci liggéey bi ubbi nañ bunt yi di ko yaatal ndax dañoo fas yéene defar sëriñ bi bis bi ba mu baax ba xam ni sëriñ bii kat am na ay jeunes yu topp ci ginnaawam ñu ko jàppale. te lépp lu mu woote ñu dox ci nañ ci war a doxee wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw kon ñu yëkkati kàddu gi jox ko Serigne Tali Diop maanaam ci wàllu turu communication yëpp mu wax ci seen tur wax ci seen kàddu woo ñëpp ñun ñëpp ñu bokk commencé diglu Tali Diop. mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ku dégg woote bii. xam ne Serigne Bassirou Mbacké mooy woote. ñu ngi woo responsable politique yu nekk ci département de Mbacké bépp di woo presse bi xeebuñu kenn ñëpp ñëw presse écrite presse orale ak ñëpp daal na ñëpp tee ci bis bi bis bi réussite mooy réussite département de Mbacké. parce que Serigne Bassirou politique bi mu fi indi mooy politique autrement patriotisme la ñuy woote dévouement la ñuy woote engagement la ñuy woote ñu ngi woo ñëpp di woo presse bi man man ministère communication bi ñu ngi woo ñëpp ñëpp ci turu Serigne Bassirou Mbacké. sëñ boobu wax dëgg yàlla kàddu yu am solo yi mu yëkkati moo yore wàllu communication bi gis ngeen leeral gu am solo gi mu ko leeral na ngeen xam ne nag su waxee loolu mi ngi woon ñëpp site internet ak gaay yëpp nga xam ne si ni maanaam boobu lenn lu ñuy seetaan vidéo yéeg ñëpp lépp loo xame ne si ni ba ci net bi lépp loo xam si ni rek ñu ngi koy seetaan rek bu boobaa woo nan la ca léegi nag dañuy yëkkati kàddu gi jox ko. sëñ Alaaji Géey ah, maam yor kaddu seex yi mu yëkkati kàddoom woo seex yëpp rawatina seex sëñ Basiir. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani ah, eh, fi may tàmbalee mooy sama bokk seex si di tàmbalee kër Seex Adama ba kër Seex Baabu ba kër Seex Ibra ba kër sëñ Isaa Jenn ba sëñ Njaay ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi. Ah, bis bi nag sëriñ Basiiru Mbàkke ibnu sëriñ Mustafaa moo koy woote maire de Koumpentoul Typ maa ngi xamal képp koo xam ne sama maam njëkk na ci sëñ Touba ba jëkk ca mujj bés bi ñu ngi la ciy woow bés bi nag sëriñ Bachir Mbacke war naa mën a tax nun seex kër sëñ Bachir yëpp ak seex kër sëñ Touba yëpp ñu maase wuy ji ko ndax sunu bés la tey saxuñu ko kenn bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ ñenn ñu ngi woo ñëpp na ko ñëpp teewee wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. dégg ngeen sëñ El Hadj Guèye woote bu am solo boobu mu woote ci turu seex yi wax dëgg yàlla ku diglu woote bi diglu kàddu gi di nga xam ni wax dëgg yàlla ki woote ak ki nii woo wax dëgg yàlla ku wuy boo ñëwee di nga gis dara kon yàlla nañ ci yàlla yóbbook jàmm ci barke baam Bamba. dana yëkkati kàddu jox ko ma Mamadou Ndiaye bu ko defee mu wax ci turu ndaw ñi mu woo ñi képp koo xam ne si rek maanaam maase nga ak moom maam ci wàllu ndaw ñi ndaw nag lu ne nga ca bu nee ndaw moom gone moom tuddul gone gone ku ne la ma Mamadou yaakaar naa ni boo wootee di nga woo ku ne. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. maa ngi woo sama mbokki ndaw yi mu ñu ko wax les jeunes euh, ñu tënku ci genn kuréel tudde ko COSEB muy coordination des jeunes de Serigne Bassirou maa ngi woote waa marché Mame Binta ndawi Bayal ba ndawi monument ndawi Touba Guy Mbind di woo l'ensemble des jeunes yi nekk ci département bi bi yëpp ñu ñëw wuy si woote boobu fas yéene ànd ak sëñ Bassirou Mbacké Typ jàppale ko ci bisam boobu ñu di ko wax rentrée politique kon ndaw yi bàyyiwuma kenn ne ñëpp ñëw jërëjëf. kon dañuy daal di yëkkati kàddu gi jox ko jëmm joo xame ni kenn ku ne xam na digganteem ak sëriñ bas kii di jël kàddu nag ci turu sëñ bas lay waxe kan mooy sëñ bas mooy ki bëgg ay waajuram kan mooy sëñ Bass mooy jàmbaar ji waaye kan mooy sëñ bas mooy ki nga xam si dafa toog fa mu a toog fan la toog tiib cay tiib ko nag ku fa dem ku ne loo dellu ci diggante tàggoog moom. conseil ba soofa la nekk président Macky Sall fekk ko fa tallal ko loxo ni ko ma ne sab taalibe laa aadama bu nga dimbali ma kon daal Macky dugg na tiib kon la noonu tiit lépp incha allah bi la dina tàggoog moom kon ñun ñëpp ñu bokk commencé diglu jëmm ji nga xam si ni mooy kaddu sëñ Bass mu leeral ko ba mu leer nañ bisimilah kaddu gaa ngoog. salaamaaleykum mbokki jullit ni mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Serigne Bachirou di meeru li tax ñu leen di nuyu nuyu boobu nekk fii ci këram tey di réunion réunion bii ñuy réunion mooy daa am bis bu rëy bu mu jub di la 15 avril mu war a def rentrée politique am euh, war a fekk président de la république monsieur Macky Sall nekkoon ci beneen ci beneen wàll gi euh, président gis ko gis liggéeyam ni mu rafet ak taxawaayam akuk dëggoom mu soxla ko woo ko mu war ko fekki mu ciy woo nag mbooleem responsable politique yi nga xam ne ñu ngi ci département bi ak région bi di ci woo mbooleem siège maire yi nga xam ne moom moo leen jiite. bëgg ñëpp ñëw fa mboolem ko rib jullit te nekk ci dëkk bi ak ci région bi mi ngi lay woo bëgg nga teew si fa jàppale ko ci bis bi ba ji bi mel na war a mel Cheikh Mamadou Bassirou na mu ngi leen di yëgal ne bisam boobu premier ministre mooy ñëw ak délégation gouvernement bépp mu bëgg nag ñëpp fekke ko sargal leen teeru leen taral leen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu dégg ngeen xam ngeen di woote baa ngi noonu góor ak jigéen mag ak ndaw kan moo woote mooy a Serigne Bass bëgg ay baayam waaye ki bëgg ay bokkam waaye ki dégg nekk ay taalibeem ki nga xamee si nee naa ko léegi président Macky Sall nee na ko ah sëriñ bi jàppale ma tàllal na loxo a ah, sëriñ Bass kon daal na ngeen xam ni bis ba kañ la la 15 fan la ci Mbakke ban heure la 3 ca bulaarum Ndoyeen na ngeen xam ni nag ku yàq ku ne. a ah, doo am place ndax bis ba ki ko woote daal di ko ki bokkam a ah, ki ko woote a ah, daa di ko ki taalibeem ah xolaay ko woote kooku day boroomu yar di boroomi teggin nag mu sëñ Basiiru kon président fonk bis bi fonk goo xamee si nee na ko Adama jël ki nga xam si ni daa sa semaine rek mooy premier ministre a yebal ko fa ak mboolem ministre yi kon daal na ngeen xam ni bis moom maanaam ku yeex ku ne bu soobee yàlla boo ñëwee da ngay xat